ñu ngi ak Marc Abdallah nekk responsable ressources humaines fi nga xamante ni moo di Majorel Marc Abdallah Sarr yéen mesure ngeen jël ak disposition yi nga xam jël ngeen ko fii ci Majorel ginnaaw ba ba ngeen fi amee li nga xamante ne ay cas de Covid 19. alors ñu ngi leen di remercier bu baax le fait ngeen ñëw tey sur site si ñu euh, donc euh, bi nga xamee ni yëg nañu ni am nañ cas bu positif sur Majorel li ñu njëkk a def mooy euh, doxal donc ay ay action yoo xamante ne waajaloon nañ ko laata crise bi di ñëw Sénégal donc euh, et puis donc lu jëm ci wàllu déjà saytu ndax euh, euh, condition yi nga xamante ne ci la ñuy liggéeyee ndax condition yu wóor la loolu commencé woon nañ ko di def lu yàgg avant euh, crise bi donc bi nga xamee ne am na li ñu njëkk a def mooy déjà daal di jël ay dispositions yoo xamante ne dafay jëm ci aar kaaraange suñu liggéeykat yi donc li ko dalee déjà ci transport bi parce que li ñu seetlu mooy ni tey Sénégal transport en commun yi ñuy jël peut-être euh, conditions yi duñ ko respecter ni mu waree te comme bëgguñu woon jël benn risque donc dañu jël suñuy oto bopp ay bus yoo xamante ne ñun ñoo ko jël di fay ay bus yoo xamante ne euh, dañ koy jël ba noppi du ñu ko feesal ndax dañuy fexe tamit ci biir bus yi euh, li ñuy wax distanciation mooy dand lu lu weesu un mètre donc euh, ki nga xam ne mooy passager yi loolu tamit respecté nañ ko ci ci biir transport bi te képp ku yéeg dañ lay jox benn masque nga takk ba noppi euh, chauffeur bi dawal ci boppam dafa am benn kit boo xamante ne moom lay utiliser euh, pour désinfecter maanaam fomp bus bi ci biir Euh, te euh, ayu bés bu nekk tamit am na benn prestataire boo xamante ne mooy ñëw moom it daal di euh, nettoyer désinfecter bus bi donc loolu ci mesures yi la bokk comme yeneen mesures yi nga xamante ne tamit jël nañ ko mooy déjà sol masque bi loolu dañ koy def mu doon loo xamante ne lu war la ci liggéeykat bu ci nekk da ngaa war a sol sa masque donc Majorel dafa jënd masque pour liggéeykat yépp ñaar ba ñett ba ñeenti masque par collaborateur comme ça bu ko defee moom muy mën di ko sol déjà ça euh, loolu lu am am solo la ba noppi ci béréb yi ñuy liggéeyee maanaam plateau de travail yi boo ko seetloo xaw ma ndax sànq def ngeen tour bi wala di ngeen ko gis ci kanam. Euh, euh, dand boobu noonu ñuy wax nga xam ne un mètre la war a doon au moins loolu tamit loo xam ne lu ñu mën a gis ci plateau yii la même bu fekkee ni euh, de de loolu euh, xaalis buy wàññeeku ci ñun la parce que fu dix nit waroon liggéeyee nga def fa cinq nit donc foofu am na looy ñàkk ci xaalis waaye pour ñun li ëpp solo mooy suñu wérgu yaram liggéeyukat yi moo tax nangu nañ pour jël loolu daal di doxal mesures yi nga xam ne moo war pour euh, ñu jàll crise bi ak jàmm donc lu ñuy wax tamit télétravail mooy euh, tey jii nga mën toog sa kër liggéeyee fa bu ko defee doo jël oto bu la andi doo ñëw sur site le risque quand même euh, euh, bëriwul doole noonu loolu ba tax na kon am nañ 40 pour cent maanaam téeméer yoo jël ñeent fukk yi ñu ngi actuellement di liggéeyee seeni kër donc loolu tamit mesure boo xamante ne doxal nañu ko am na tamit lu ñuy wax euh, euh, donc tey ji site bi boo xoolee booy dugg am na euh, ay dispositifs yoo xamante ne comme par exemple gel bi ngay jël pour nettoyer say loxo balaa ngay dugg sur site loolu tamit gis ngeen ko ba pare laataa kenn di dugg ci site bi vigile bi day jël sa température donc xool ndax amoo fièvre bu fekkee da nga am fièvre automatiquement dina informer ñi nga xam ne ñoo yor wàllu wàllu santé bi pour ñu mën ñoom doxal euh, mesures yi nga xamante ne retenir nañ ko pour cas yu mel noonu pour mën ko gérer efficacement boo xoolee tey jii sur site en fait euh, ascenseur bi dañ ko arrêté donc amatul kenn kuy jël ascenseur léegi ñëpp ay escalier la ñuy jël euh, donte ni sax bu fekkee am na risque nga jël euh, escalier am na ay affiches yu ñu ci def aussi pour bàyyi loo xel nit ñi nga xam ne dañuy jël escalier nan la ñu war jëlee loolu ba tax ñoom it dinañ fexe jël ko te duñ ci am benn risque gaañu gaañu donc am na tamit benn bu mu jokkoo. bu ñuy wax hotline boo xamante ne bu mu jokkoo la boo xamante ne saay su ko soobee liggéeykat bi mën na woote ci numéro boobu bu ko defee am na ñu koy dalal foofu pour répondre donc ak euh, ay ay ay questions yoo xam ne am na ko ñu jox ko ci ay leeral ba mu leer ci moom ba bu ko defee xam nga xelam dina gën a mën a dal wala mu gën a fagaru ba ba tax euh, voilà feebar bi daal euh, gaaw jóge Euh, fii ci Sénégal nu mu gën a gaawee fii ci àdduna bi euh, laa bëgg a wax donc euh, xeebuñu dara donc bi mu jotee lépp loo xamante ne mesure la boo xam ne entreprise war na ko jël pour sàmm ay liggéeykatam def nañ ko ba mu mat sëkk. donc fi mu nekk nii moom et si ñu ngi ñu ngi ñu ngi remercier liggéeykat yi parce que mesures yi ñu jël yépp bokk na ci tamit cantine bi ñu tëj. Euh, bokk na ci tamit euh, salle de repos yi maanaam bërëbu dallukaay yi ñu am fii ci biir dañu ko tëj bokk na tamit ci jullikaay yi fi ñu ko amoon dañu ko tëj loolu lépp bi ñu koy jël xëy na ay mesures yoo xam ne dina metti ci ñëpp rawatina ci liggéeykat yi mais nangul nañ ñu ko te respecté nañ tamit mesures yooyu donc loolu dañ leen ciy remercier bu baax a baax. mesure distanciation yeeg barrière yeeg lépp da waaw loolu nag am na tey jii pour am firndeel bi parce que euh, dafa dafa am chaque suba su ma xëyee man déjà sama liggéey bu njëkk mooy ma wër. plateau yi xool déjà ndax loolu respecte nañu nañ ko bu fekkee bu weesoo loolu infirmière bi ngeen gis sànq ak médecin du travail bi tamit gannaaw bu ñu defee ay atelier de sensibilisation ci loo xamante ne njëkk na épidémie bi di am Sénégal euh, donc ñoom itam dañuy def ay wërngël pour xool ndax am ndax ñi ngi bàyyi xel respect barrière yooyu am nañ tamit koo xam benn cellule d'alerte c'est-à-dire tey jii benn benn kuréel la goo xamante ne en interne ñoom ñoo fi nekk pour saytu ndax loolu ñu jël ci ay mesures ndax liggéeykat yi ñi ngi koy respecté bu fekkee am na ci lenn loo xamante ne rek jaarul yoon moom dañuy alerter comme ni ko euh, turam di diwu wuyoo cellule d'alerte day alerter euh, kilifa yi nekk ci kër gi bu ko defee ñu woo ki nga xam ne mooy gérer lool fexe mu jël lépp luy matukaay ba li ni du amati ñu ngi lay jaajëfal baax mark Abdallah Sarr ci yitte yi ak ak ak yaatu ak teewlu bi. maa leen di jaajëfal ci seen yitte yéen it ñëw ci site bi si ñun ñu ngi leen ciy remercier. jërëjëf monsieur Sarr. mel ni ñu ngi aussi Mboup monsieur Ousseynou Mboup nekk euh, directeur production fi nga xamante ne moo di fii si Majorel monsieur Mboup euh, ndax ba ñu annoncé li nga xamante moo di benn cas fii si Majorel ndax yëg ngeen euh, wàllug bees si wàllug koom-koom bi ak seen chiffre d'affaires fii ci Majorel. waaw feebar bi moom ak pandémie bi defe naa ni euh, bàyyiwul kenn au niveau national comme au niveau international euh, yëg nañ ko comme ni ko ñëpp yëge euh, mais tamit àdduna foog ñu foog ñu continuer foog ñu continuer di di dem foog ñu continuer di liggéey foog ñu continuer di wut lu ñu yóbbu ca kër ga. Euh, nous pouvons dire que le, le secteur de la relation client comme ci li Majorel di yëngu euh, n'a pas été épargné par la la pandémie exactement. daal feebar bi laal na leen waaw feebar bi moom comme ni ma la ko waxee sànq ñëpp ñëpp la laal ci àdduna euh, bàyyiwul kenn même Majorel euh, waaye euh, grâce à engagement wu ñëpp di liggéey ci Majorel muy de muy de près muy de loin. équipe yi on les équipes ont fait preuve de d'innovation de d'engagement d'implication pour mettre en place euh, ay modèles yu bees pour continuer euh, mettre ñi nga xam ni mooy suñuy collaborateurs majorels dans les meilleures conditions de sécurité et de santé aussi pour permettre à activités yi ñu yor euh, muy continuer di di tourner normalement boobu ndax nga def yan politique ngeen def ngir fexe daal mucc ci ci ci wàllu effet négatif yi xam jàngoro ji mën na ko waaw ñun moom bi bi mbas mi feeñee ci àdduna ba léegi euh, xaaruñu am kaa ci ci ci ci ci suñuy ci suñuy site euh, déjà li ñu li ñu njëkk a def mooy ci ci ci plateau yi Euh, respect total distanciation comme ni ngeen koy comme ni ngeen koy gisee ni benn place la nit di toog beneen place bi kenn du ci nekk beneen place nit ki toog ci euh, tout ce e est gel euh, hydroalcoolique mi ngi fépp ci suñu plateau de production yi à l'entrée des plateaux de production même transport bi suñu collaborateurs yi di dugg tey jii nii transport bi majorel moo ko jël totalement en charge Euh, ci vacation yëpp bu nit di jóge këram ba bu muy dugg si ci bus ma ba muy dugg ci buntu Majorel euh, transport bi Majorel moo ko jël et gratuitement et juste pour vous donner un exemple tey jii nii transport yi ñuy mettre à disposition euh, suñu collaborateurs yi c'est des bus de transport que ay professionnel ñoom ñoo ko ay professionnels ñoom ñoo ñoo ñoo ci nekk di ci yëngu. bus bu nekk dañ koy nettoyer régulièrement bus bu nekk dañ ciy def fumigation régulièrement euh, te bus bu nekk je donne exemple euh, pour un bus qui qui qui doit faire vingt quatre places tey jii nii pour respecter même au niveau de ces bus là euh, le niveau de distanciation sociale ñun douze places wala dix places lañ ci def pour mettre no collaborateurs dans les meilleures conditions aussi d'hygiène et de sécurité plateau yi naka noonu euh, aussi mënuñu woon toog noonu rek fallait que ñu. inventer d'autres façons de faire tey jii nii lu ci bëri ci suñuy collaborateur on a fait de tell sorte que jox nañ leen le matériel nécessaire adéquat comme comme ordinateur wutal nañ leen ay connexion internet wala ay box pour ñu mun a toog tranquillement liggéey seen kër comme si ñi ngi woon ci ci biir entreprise bi donc loolu bokk na ci mesure yi ñu jël euh, pour mettre en sécurité et nos collaborateurs et pour que le business euh, bi ñu yoree continuer di fonctionner parce que boobu dernière question rek euh, ban message ngay lancer seen collaborateur bu ko defee seen xel dal rek ci ànd ci wàllu liggéey bi. message bi ñuy gën a lancer suñu suñu collaborateurs yi mooy déjà di leen jaajëfal ndax du du du période bu yomb euh, déjà di réitérer appel que fi mu toll nii il faut que ñu continuer di il faut que àdduna continuer il faut que ñu continuer di dund et li ñu mën a musal mooy la responsabilité de tout un chacun dans le respect des gestes barrières euh, pour que ñu mën a mucc. muccal suñuy collègues muccal suñu njaboot ak muccal ñu ñu bëgg ñëpp. ngi jaajëfal bu baax monsieur Mbow. maa ngi leen di jaajëfal jërëjëf. asalaamaaleykum maa ngi tudd Aminata man maa nekk ci service médical bu Majorel ñu ngi leen di xamal que feebar bi ba mu dooree Sénégal mu ngi commencé Sénégal mois de mars ñun Majorel Sénégal ñu ngi doog a jot ci feebar bi ci mois de mai bi. mois de mais bi la ñuy doog jot ci feebar bi te jotagum nañ ci am ñaari cas ñaari cas yooyu nag ñu ngi leen di dalal di leen xamal que ni autorité sanitaire yi ñu ngi leen di suivre d'ailleurs sax ñu ngi ci bërëbu fajukaay yi bu weesoo loolu ñaari cas yooyu ñun majoreel dem jëm nañ def lu ñuy woowee traçage maanaam cas contact yooyu yépp tracé nañ leen wax leen ñu toog seen kër. wax leen ñu respecter gestes barrières yi maanaam ñu sol seen masque ñu bañ a am aussi contact ak seen famille en attendant autorité sanitaire yi ñëw seen kër prélever leen ñu ngi profiter aussi di remercier autorité sanitaire yi ci seen efficacité ak ci seen ñàkk lu parce que bañ leen woowee rek ci saa si lañ commencé di dugg ci këru suñu travailleurs yooyu pour prélever leen pour ñu xam seen statut donc ñu ngi leen ci féliciter di leen encourager aussi bu weesoo loolu ñi nga xam ne ñi ngi toog seen kër di xaar seeni résultat wala di xaar ñu prélever leen ñi ngi leen di soutenir di leen mastawu di leen ñaan aussi ñu muñ te xam ni lu metti yàggul et que vraiment ñu ngi ñi ngi leen di xalaat bu baax a baax di leen ñaanal aussi que seen test yi ñu revenir négatif ñi nga xam ni nag jot nañ see loru ñu ngi leen di ñaanal ñu dellu siwaat ci jàmm til seen bërëbu liggéeyukaay parce que ñun Majorel liggéey bi ñëpp xam nañ ni metti na mais Majorel ñun wérgu yaramu travailleurs yi lañ jiital balaa dara donc vraiment ñu ngi leen di souhaiter un bon rétablissement pour ñu ci jot loru di ñaan yàlla tamit ñi nga xam ne jotuñoo am jàngoro bi ñu bañ see loru bu weesoo loolu ñi nga xam ne ñi ngi nekk di liggéey ci chaque jour. ñi ngi assuré wu ñuy respecté geste barrières yi te ñi ngi leen di déglu di saytu seen wér gu yaram saa su nekk